الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن الله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق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 yàlla nettali taarix bi ak histoire bi ak li ca xew yëpp ak ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan dañ leen di dañ leen di tuddee ñi nga xam ne dañoo shahid mooy ñu dee ci yoonu yàlla euh, la leen yàlla defal ci ay xéewal fayee leen ko ci aljanna yàlla di nettali ne nag ñooñu nag yastabshiruuna ñu ngay bég ci lan ci xéewal goo xam ne mi ngi jugee ci yàlla bi ti ci xéewal min allah ba tukkee ci yàlla wa fadlin ak ngëneel goo xam ne yàlla defal na leen ko bi nga xamee ne dem nañ aljanna wa anna allaha te yàlla laa yudiicu du sànq ajral muminina yooli way gëm ñi ba dem kare ci yoonu yàlla bañ rey leen ñu faatu ñooñu seen yool yàlla du ko fekk du ko du ko sànq allazina stajaabu lillahi wa rasuli wàcc na bi nga xamee ne nas wàcc na ci ñooñ ñooñ uxud bi nga xamee ne xaswa bi tàbbi na ñu ci ñu rey ci ci ñoom juróom ñaar fukk ak ñaar ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne rey nañ ci ñoom juróom ñaar fukk ak juróom ñaar teewut am nañ kóolute ci yàlla am nañ yaakaar ci seen borom delluwuñ gannaaw ndax bi nga xamee ne xasuutu uxut paase na ba loolu xew leen abu sufiyaan def ne doyut nañ dolli ci sens yi rek mu ne nañ dem songaat jullit ñi daldi jox daldi jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah yonent bi nag ànd ak li dal gaa yépp mu ne danaa takk danaa takkuwaat dem jàkkaarloog moom donte sax man kenn may dem ah bi nga xamee ne jox na yonent bi rendez-vous nag yonent bi daal di jóg ànd ak ñi muy àndat ñoom ñëpp ñu ne ko ñun tamit dañuy dem ànd ak yow ah yàlla wàccee tiitaange ci Abu Sufyaan ak ñi ànd ak moom ñu daal di dellu gannaaw yàlla nag bëgg leen a tagg ne alladina alladina ñaa ngi nga xam ne istajaabu uyu nañu oote yonent bi sallallahu alayhi wa sallam uyu yàlla wa rasuli ak yonent bi ci oo bi mu leen oo ne leen génn leen ñu dem xeexi te ñu ngi jógee ci xeex góom yaa ngi seen yaram yi wéragul ñooñu yàlla la bëgg a ne ne min ba alladina ñaa xam ne uyu nañu oote yàlla ak yonent bi sallallahu min baadi ma asaabahum gannaaw bu bu leen jotee alqarxu jam-jam ya ci uxud lillazina ñi nga xam ne ahsanu rafetal ñeen minum ci ñoom ndax topp day ànd ak rafet ndax topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn xare ji ñu rey ci yow juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar gaañ ay gaañ-gaañ teewut mu ne la jógaatal ci diggante guddi ñaari xeex yoo xam ne guddi moo jaar seen diggante nga jógaat ñii bandage seeni loxo ñii takk seeni tànk yëpp ñu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi dëgg-dëgg loolu mooy topp gu ànd ak selal mu ne nag ñi nga xam ne def nañ loolu wa taxaw tañ rag tañ tañ teet uteeg moom ñooñu de ñeel na leen ajrun yoolu azim bu màgg te mooy aljanna alladina qaala lahum naasu wàcc na bi nga xamee ne Abu Sufyaan joxoon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rendez-vous ne ko nañ dajee ci xeex gannaaw at jox ko rendez-vous at ne ko dañ dañ yow ci Badar bi nga xamee ne nag rendez bi jege si na te Abu Sufyaan boppam mu yónni Naim bin Mas'ud ne ko daal soo fexee ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tiit moom ak ay saxaabaam bañ fa mu xare bi boobaa incha allah danaa la jox kado bu kado bu mag a mag ah Naim bin Mas'ud ñoo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko tiital ne ko gaañi kat dajee nañ ci seen assemblée ñi ngi waxtaan waaye li ñu amee ci préparation ak kattan ak i ak i arme loolu moom mënu leen koo dékk mënu leen koo dékku li ma gis ba gis ko daal mooy na ngeen fexe gàntal Abu Sufyaan waaye bu ngeen dajeek moom ci yoon wi moom du baax kon bi nga xamee ne wax nañ loolu nag yonent bi ak saxaabaam yi loolu dolli leen yaakaar dolli leen euh, fit yàlla bëgg ko nettali ne alladina ñi nga xam ne qaala wax na lawum ñe leen annaasu naim bin masud wax leen ne inna naasa naka nit abu sufyaan ak ay gàngooram xat jamau préparé nañ pexe nañ lëkkum ñeel leen pexe mu rëy a rëy ngir lor leen faxshawhum ragal leen leen bu leen dem ci xare bi bi nga xamee ne wax nañ loolu nag fa zaadahu mu dolli leen wax jooju nga xam ne dafa ñëwoon di leen ko wax pour tiital leen wax ji dolli leen lan dolli leen imaanan gëm yàlla ak óolu ne yàlla dañ li dimbale wa qaalu ñu daal di wax yonent bi sallallahu alayhi ak i ne ne xasbuna doy nañu ci mbir moomu yàlla doy nañu ci wa ni'mal wakiilu te moom la ñuy moom la ñuy euh, euh, confier suñuy mbir yépp jébbal nañ ko yàlla bi nga xamee ne loolu wax nañ nag wax nañ ko nag ah, fan xal yàlla dolli leen fan xala bu ñu mujj jógee ci badar ànd ak xéewal bi niamatin ci xéewal min allahi bu jógee ci yàlla wa tabau wa fadlin ak ngëneel ak mucc ak jàmm ak wërsëg lam yem sa suum laalu leen suun benn ñaawteem benn ñaawteef ci rey wala blessé dara jotu leen wa tabau ñu topp ridwaan allahi eh, yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci génn gi génn wallaahu yàlla zu fadlin mooy boroom may azimin yu mag yi ci ñi nga xam ne topp nañ ko bi nga xamee na nag ñoo wax nañ loolu yàlla may leen lim leen may dëgëral leen innama dalikum naka wax jooju kooku di wax wax jooju muy Naim bin Mas'ud wax jooju ah, waxi seytaane la seytaan kooku seytaane la seytaane nag yu xawifu dana ragalloo awliyaahu xéewéer yi xam nga ko ne ko dana leen ragalloo waaye daf ko ragal daf ko wax ne ko seytaane moom ki mën a ragalloo mooy ki jël mbiram rek wekk ko ci seytaane waaye ki wekki mbiram ci yàlla seytaane mënu koo ragalloo kon nag falaa taxaafuhum bu leen leen ragal wa xaafuuni ragal leen ma ci bàyyi sama bàyyi sama ndigal li ma joxe ngeen ragal ko moo gën ngeen di ragal mbiri seytaane in kuntum nem nekk ngeen mu muminina di way gëm te loolu may xew moo xew ndax gis nga gars yi bi ñu waxee lu rek ah jullit ñi dañoo daal di lànk ngëb yàlla ngëb yonent bi am confiance ci yàlla am confiance ci seen diine moo tax yàlla may leen ne nañ xare boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaay na ci jënd na ci ah jënd na ci géléem goo xam ne def ci am bénéfice bu rëy daal di koy séddale saxaaba yi kon ñu jàngee ci dërs bi wakiilu ci yàlla gis nga xasbunallah wa nemal wakiil boobu wax nañ ne Ibrahima bi nga xamee ne yàlla euh, pare na koo dimbale baat yooyu la ko jox ndax Ibrahima alquran nettali nañ ne qul naa yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala Ibrahima loolu bi muy amat mooy ne dafa jàng xasbunallah wa nemal wakiil wax nañ wakiil imaamul jaafar wax na ne moom dana yéemu ci ki nga xam ne tëkku nañ ko ndax tëkkuwaatekat yi dañoo bari ba pare tam xam xasbunallah wa ni'mal wakiil mu ne ndax moom dégg na ci yàlla mu wax ne ki wax xasbunallah wa ni'mal wakiil fanqalabu bi ni'mati min allahi wa fadlin lam yamsasum suu dégg na ci yàlla lu tax mu ne dégg na ci yàlla ndax alquran wax yàlla la ndax ñi nga xam ne dañoo wax ne xasbunallah wa ni'mal wakiil ca sensé rek yàlla li mu leen wax ne fan qalabu bi ni'mati min allahi wa fadlin lam yansabhum suu kon kooku am na óolute ci alquran mu ne tim yéemu na ci gis odu ku bu mel ni laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin mu am feebar bu mel noonu stress ñëwal ko tam gis médicament bi te jëlu ko médicament stress mooy lan mooy laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin ndax bi nga xamee ne yunus wax na ko yunus ba bi mu nekkee ci njàqare gi stress jàpp ko bi mu waxee laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimina ca sanse rek ne na fa inni samitu llaha yaqul fastajabnaa lahu wa najaynaahu min alxammi amul foofu waaye mu ne wa kadalika nunjil muminin kon nag képp koo xam ne stress jàpp na la wala am nga ay jafe-jafe jax-jaxal boo waxee laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin yàlla dana régler problème boobu <coughs> mu ne ba léegi yéemu na ci nga xam ne tëkku nañ ko ci ne danañ ko rey am na ñoo xam ne dañuy tëkkuwaate di la tëkku ne danañ la rey danañ la torokal danañ la danañ la pexeel mu ne képp koo xam ne nag loolu dal na te nga xam médicament bi koy faj mooy lan mooy wow ufawidu amri ila allah inna allah basiru bil ibad mu ne ba léegi bi waa ji bi waxee loo rek dégg na yàlla ci boppam di wax fa waqaahu llahu sayiaati ma makaru wa xaaqa bi ali firawna suul kon na képp koo xam ne tëkku nañ la wala nga jëm ci place boo xam ne yaakaar nga ne boo fa demee da nga fekk ni ñu lay palaal def leen lii ci sees bi minutes toog ak bu ñëwee nañ ko gàccaal bu ñëwee nañ ko nangam na nga jàng woo fawdu amri ilallah inna allah basiru bil ibad boo ko jàngee yàlla dana la musal lépp lu gars yi programmé réseau bu ñu mën a lal bu ñu ñëwee réseau ba dootu dox bu la neexee nga jàng ko téeméer yoon mu ne ba léegi ñi nga xam ne li leen itteel yëpp mooy alal te bëgg nañoo dund ñoo ñu dee képp koo xam ne soxoon na ci macha allahu la quwata illa billah yàlla dana la indil alal dana la indil koom lu ci mën a xew ay baat la yoo xam ne alquran mi ngi koy jàngale di ñu di wax ne ku sukkandiku ci yàlla rek dana la yàlla dana la dimbale ndax saxaaba yaa ngi nii bi ñu sukkandikoo ci xasbunallah nimal wakiil yàlla may na leen ndam dimbale leen ñu wax ne bu fekkee da koo jàng nag ci limam limam xaraf yi mooy quatre cent cinquante suba ak ngoon lu dul yàlla rek mënut ci yow dara benn boroom xam-xam wax na ne képp koo xam ne saxal nga xasbunallahu wa ni'mal wakiil yàlla dana yokk sa wërsëg dana guddal sa fan te say noon du ñu mën a ree yàlla ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam walaa walaa walaa walaa yuxzinka bum la naqari alladina ñi nga xam ne yusaariuuna ñi ngay njëkkalante fil kufri ci weddi ñoo ñooñu nga xam ne ñi ngi njëkkalante di dem ci weddi di mooy yàlla bu mu la naqari feneen yàlla wax na ko ne ko fa laalaka baaqu nafsaka ala athaarihim in lam yuminu bi hada alxadit asafa fa laalaka baaqu nafsaka yooyu yëpp yàlla mi ngi koy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñii nga xam ne ñi ngi xër di njëkkalante di weddi di contre bu mu la def problème te ñooy ahlu makka ak munafiqiin yi laa tahtamu li kufrihim seen weddi googu yow bu mu la intéressé innahum na ko ñoom lan yadurru mënuñoo lor allah yàlla cheyan ci dara ci seen jëf yooyu ñuy jëf ñoom diine ji nga xam ne xam nga lan yadurullah waxuñ ko ne ko mënuñ laa lor def na ko lan yadurullah cheyan mënuñoo lor yàlla gannaaw nag yàlla jël na combat bi kon yonent bi bur sono ñooñu de yuridullahu namm na yàlla allah yajaala mu bañ a def lawum ñee leen xasan benn cër fil axirati yi bés penc yàlla bëggu leen a cërale dara ci aljanna looloo tax mu gàccal leen ba ñuy gaaw di génn ci dina ji walahum te ñeel na leen adaabun bu màgg mbugal nag yàlla bu ne màgg na rek mooy safara la te safara li ko yàlla melalee bëri na ndax munaafiqiin yàlla wax ne inna al munaafiqiina fi darkil asfali min an naar mbugal mi léegoo léegi yàlla naan alim léegoo léeg yàlla naan muhin léegoo léegi yàlla naan azim yooyu yëpp xeeti mbugal la yoo xam ne yàlla mi ngi koy tëkkoo munaafiq yi ak ñi nga xam ne dañoo weddi inna lazina ñaa ñi nga xam ne ishtaraw jënd nañu al kufra weddi ga bil imaani ci ngëm papa Alaa Abdoulaye Niass daana wax ne baatab imaan baatab ishtaraw foo ko gis ci alquran boo bëggee xam baatab jënd ak jaay foo ko gis rek koolal fi baabi dugg toujours fi baa bi dugg mooy lim joxe bil imaan maanaam ñoom imaan lañ joxe jël weddi waaw changé ko ñooñu de lan yaduru mënuñoo lor allah yàlla ci seen weddi googu shay an dara wala um ñaan ne leen adaabu mbugal alimun bu métit xam nga mbugal dana rëy waaye mbugal dana métit dana dana ànd métit ndax am na ñoo xam ne yàlla dana guddal seen fan ñu màgget daj ay coono daj ay métit ñi leen di weer di leen weer yi ba mujj gi mu nekk mbugal goo xam ne ah daanaka dafa tàmbali ci àdduna njëkk muy dem fële kon nag mbugal dana ànd ak eh, métital wala na bu njortu alladina ñaa yi nga xam ne kafaru weddi nañ annama num lii naka yéexe gi ñuy yéexe seen mbir ci bàyyi leen fi ñuy gudd fan ah di am wërsëg lawum ñeel leen yéexe biñ leen di yéexe noonu ñuy gudd fan di am xaalis di yaataa yumbe bul yaakaar ne xayrun xiw la li anfusihim ñeel leen innama num lii naka danañu yée danañu danañ leen fi yàggal yéexe seen mbir lahum ñeel leen li yes daadu ñu dollu isman bàkkaar ndax seen bàkkaar yi di gën a yokku rek waaw su ko defee nag wala um ñeel na leen azaawun mbugal muhiinun ñi borom doy dal kon yàgg fi te say jëf baaxut amut benn njëriñ solo nañ jëlee ci ibnu mas'ud mu ne ma min ahadin amul kenn koo xam ne jëf na jëf ju baax wala mu jëf-jëf ju bon su fekkee kii jëf-jëf ju baax la yàlla ne na wa ma inda allahi xayrun lil abraar yi li am li nekk fa yàlla moo gën ñeel ñi nga xam ne dañuy jëf-jëf ju baax su fekkee ne nag ñi nga xam ne ay faajir lañ yàlla wax na ne nu numli lahum innama numli lahum liyazdaaru isman kon nag jëf-jëf ju baax moo li nga xam ne mu am solo ah xayru nnaasi man taala umruhu wa asuna amaluhu wa charu nnaasi man taala saa amaluhu gis nga bàyyi indi na ko ci téere bi ne nañ jëlee nañ ci abdurahman ibnu abi bikrin an abi an rajulan qaala yaa rasul allah ayu nnaasi am na ku laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaw nit ñi kan moo ci gën yonent bi ne ko man taala umruhu wa xasuna amaluhu ki nga xam ne gudd fanam gudd na ba pare ay jëfam baax mu ne fa ayu naasi charrun mu ne ko nit ñi kan moo ci gën a bon mu ne ko man taala umruhu wa saa amaluhu ki nga xam ne fanam dafa gudd ba pare ay jëfam ñaaw kon nag ñooñu nga xam ne yàlla mu ngi guddal seeni fan ah ñi am xéewal jaru ñooñee ah jarta yaakaar ne yàlla dafa leen fàtte déedéet waaye mbugal gi moo nar a métti rek moo tax mu ne waloom azaabu muhin maa kaana nekkul allahu yàlla li yazara muy bàyyi almuminina way gëm ñi alaama ca la nga xam ne antum ñoom ala yi ñanga ca ñi yàlla du bàyyi jullit ñi ñi gëm rek ne gëm nañ kese mu bàyyi leen noonu déedéet dana leen examen dana xool ba nga xam ne nii dana xam ñi wax ne gëm nañ seen gëm gi dëgg la wala du dëgg xataa yemiisa ba mu tàqale alxabiisa munaafiq mi min a tayi bi ci kàccoor gi ak ak ak ki nga xam ne dafa gëm ndax munaafiq dëgg mooy ñëw ne gëm naa te fekk gëmul ñooñu nag al yàlla dana leen tàqale ràññee leen wa maa kaan nekkul allahu yàlla lii tuddaakum mu leen di war mu leen di wan alal xay bi ci fàddu ba ngeen mën a xàmmee munaafiq mi ak ku dul moom walakin li fi nekk allah yàlla yegte bi dana tànn man min rasul yi ci ay yonentam man yashaawu ku ko soob mu xamal la ko comme ni nga xamee ne noonu la ko xamale woon yonent bi sallallahu alayhi wa xamal ko mbiram munaafiqiina yi fa aaminu gëm leen billaahi ci yàlla wa rasul yi ak ab yonentam wa in tuminu ndem gëm ngeen wa wa tattaqu ngeen maytu nifaax moytu wét moytu naafeq ñëw tàllal salaam mi ñu gëm naa fekk sa xol gëmut ndax munaafiq moom li yàlla wax ci moom dafa garaaw ndax innal munaafiqiina fi darkil asfali min an naar amul ci dugg safara waaye ca suufa suuf lay ne kon nag ah, bu fekkee ne gëm ngeen yàlla gëm yonent bi ba pare moytu moytu nifaax fa lakum ñeel na leen ajrun yool azimu bu màgg te mooy aljanna wala yaxsabanna bu mu njortu nag alladina ñaa ñi nga xam ne yabxaluuna ñi ngi nay ñi ngi nay bi ma aataahum llahu ca yàlla jox na leen ko min fadlihi ci ci ngëneelam yàlla jox la ci ngëneelam ci mbaaxaam ngay nay ba te doo joxe azaka woo moom nay googu xayran moo gën lahum ñeel leen buñ yaakaar ne nay gi ñu nay di denc alal yi ci compte yi banque yépp yaa ngi fa am compte te nangoo koo laal yaakaar ne yaa ngi sécurité sa bopp loolu du sécurité yàlla ne ne buñ yaakaar ne xiw la du xiw bal kañ li fi nekk waxal ne huwa loolu nay goog ñu nay ak xaalis yooyu ñu denc ci compte yi bañ ko génn charrun hayla lawum leen ndax xaalis yooyu ñuy denc yi sa yu def na caqal leen maa baxilu lañ ne yoon bii ci loolu ci azaka yeeg ñàkk génne alal yépp yowmal qiyaamati bés penki dañ koy def ay ceen rangal leen ko seeni doq te ceen gi buñ la koy rangal day fekk jaan lay nekk walillaahi aji sax la ñeel yàlla miraasu samawaati ndono osomaani juróom-ñaar wal ardi ak suufi juróom-ñaar bu ñëpp demee lépp jeex yàllaa leen di donn wallaahu yàlla xabiirun aji dañ kumbala aji xam la bi maa taamaluuna ca la di def te dana leen ko fay allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallama tasliman lépp lu ci dajeeg euh, jub yàlla ñu ko yàlla fulal te euh, yokkal ñu ko lépp lu ci dajeeg njumte yàlla ñu ko yàlla jégal euh, ñu ngi gërëm di sant mbokku internet Nasru TV ñi seetaan yépp di ñaan yàlla mu mottali kaamil mu mottali kaamil bi ci jàmm di may ñu ndam may ñu tawfiq gën ñoo déggloo alquran euh, ki leen doon defal émission bi mooy seen bokk euh, Mouhamed Omar Niass ci naasir alxaq bilxaq li tahfid alquran alkarim wa dirasa alislamia wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh alkawn wa zamanu bi islami wa imani alkawn إسلامي وإيماني أضاء